ma wax la màggal gi yayoo miraasu ba dese woo dara ni koy faraasu mooy bis ba Bamba xëyee fa Mbàkke baare tàbbi ca géej ga li muxtaari message ma moo di màggalug Cheikh Bamba وجعل لي مثال فمaka Tayba ma wax la màggal gi ya yoomi raasu ba desee woo dara ni kuy faraasu mooy bis ba Bamba xëyee ba Mbàkke baare tabi ca géej ga li xidmatil muxtaari misaal ma moo di magaluk Cheikh Bamba o jaaj yalay misaal fa makaak Tayba déglul ma wax la magal gay bisam ba mu dem ka dikk gaaw ga mu ngir yoneen ba magal la ko xam ni newul ci téere ngir mayu Cheikh Bamba xajul ci fóore yi magug borom Tuuba moo waral màggal gi màggal li njool Màkka moo waral demam ga déglul ma wax la màggal gay bisam ba mu dem ca digg gaawu gaamu ngir yoneen ba magal la goo xam ni newul ci téere yi ngir mayu Cheikh Bamba xajul ci fóore yi magu Tuuba moo waral magal ga magal li njool Makka moo waral demam ga waxajatan liman bi dox fil waqujatan ala muxaalifin xada nit ak gineek malaaka ñëpp a teew ngir darajey Cheikh Bamba bis bi lee siiw képp ko màggali bisub tukkeem ba jixaat nga aj nga umra am nga yoon